métti nag parce que ñoom ñu ngi doon joué mais nanguñu génn seen biir zone la ñuy taxaw il fa lekk ñun ñu génn ñëw ñoo ñu mun a ñu mun ñaa topp mais à part loolu moom mooy loolu mais xam naa ni match buy ñëw moom dinañ def tout pour gagner xam naa ni yaakaar naa dinañ gagner incha allah. xamuñu ko parce que mosuñu koo gis mu joué waaw mais instant bi jàngat la rek instant bi dañoo ñëw gis nañ leen joué nañ mais dañuy jàng instant bi lan non ma sax sonn ma noonu yëpp yëpp waaw. ok merci waay. alors looy wax sa coéquipière yi parce que da ngeen di dem ci match bu gën a métti. non loolu li ma leen wax moom mooy ñu góorgóorlu match prochain ñu gagné ok incha allah waaw. <laughs> non pas frustration amul mais ñun daal ñu ngi euh, xaar pour lundi lundi daal victoire daal moo ñu moo ñu kii ñor te incha allah lundi dañoo bëgg a gagné. nan ngeen di contrer loolu. non dugal bii moo des incha allah lundi dañuy dugal waaw. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.